ومن أحسن قولا ممن دعا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dana kontaan loo bu baax mbokk yi nga xamante ne si ñoo yor organisation fii ci jàkkaay Abdoulaye ibn Mubarak ñu dalal leen ci weeru koor bu mag bi ñu nekk di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba ñu mën a màng yiwu ci nekk lépp buñ paree mu nangul ñu ko te fulal ñu ko te boole ñu ci kuréel yi muy boreel ci safara gannaaw loolu ñu ngi am mbégte di dalal cheikhna cheikh Mouhamad Ahmad Lo ci conférence bi nga xam ne moom la ñuy ubbee activité yi am fii ci jàkk ji rek insha allah mawduu bi ñu ko tànnal mooy ad-da'wa al-islamiyya xaqiqatuha wa ahdafuha muqtadayaatuha maanaam woote ci jëme ci lislaam loolu mooy lan dëgg-dëgg loolu mooy lan ak ya nga xamante ni si mooy ay raayam yi nga xamante ni si moom lañ ci jublu ak la ca nekk ci ay reegal yoo xamante ni si képp ku soobu ci yoon boobu war nga caa jéem a war nga caa jéem a am jéem caa tënk sa woote ba doo ci dugal loo xam ne dana wutante ci xàlloon yoonu mi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam méthode boobu dinaa doxe kon bala ñu ko jox kàddu gi ñu leen di yëgal ne suñuy mbokk yoo xamante ne si ñëpp ci dugal ñi nga ànd ak ñun ci conférence bi ñoom ñooy ñi nga xamante ne si ñu ngi ci jàpp bu baax kon ñoom it ñu ngi leen dalal di leen encourage bu baax waaye ñu ngi fàttali suñu mbokk jili di teew ci jàkk ji ne leen weeru màgg de leen nekk muy weer boo xam ne dañ ca war a profité te doomu aadama ji li muy profité ci jëmmi boppam lam ca man manal boppam dafa am fu mu yem kon bu ñu nee ci weeru koor mbooloo mi teew ñu bëri ñu leen di ñaan bala ñoo tàmbali ñu ngi leen di invité ñu war fay doge ku ko ci yàlla jàppandalal loola ba tax na kon ñu ngi leen di yëgal na leen lu ci waaye mën a jàpp ci côté boobu am na ñu toog ci bunt yi di leen ci xaar kon ñu ngi jox kàddu gi Cheikhna docteur mu tàmbali waxtaan bi incha allah yeneen ñu bàyyi ko ci mu وشيخنا فليتفضل مشكورا مرجورا ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci weeru tedd bi lu tàmbali muy weeru koor tey di ci ñaari fan ci atum junni ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett 1438 suñu borom tabaraka wa taala nangul nu mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi ko ci yéenee def damay ñu tawfiq yi nu defe ko ni mu waree te su boobaa nu nangu ko ful ko yaatal baykat waxtaan wi ñu séq nag tey ñu war koo ubbee tereetu waxtaani ramadaan yi muy suñ mawsim 2017 ci ramadaan dafa jëm ci tomb woote jëm ci lislaam ni ko Cheikh Moussa waxe jazaahullahu xayran ad-daawa al-islaamiyya xaqiqatuha wa ahdaafuha wa muqtadayaatuha muqtadayaatuha dëgg-dëggi woote boobu mooy lan ak lan mooy ay ahdaafam maanaam ay objectifam yi ko tax a jóg ak yi muqtadayaatam mooy yan bi nga xam ne day tegu ci loosu képp koo xam ne gàddu na daawa boobu fas na ci yéene liggéey xam objectif yooyu dana xam objectif yi la mu laaj benn bu ci nekk dafa am lu mu laaj ngir daawa bu mën a taxaw loolee nga xam ne mooy la mu laaj nag ñu war koo def loolu moo tudd ay muqtadayaat ñu bañ a guddal lool foofu ñu xam ne rek waxtaan woo xam ne dafa jëm ci biir daawal islaamiya am na ñaari anam anam koo xam ne dafay jàngale daawa bi ñu koy defee ñaari wet bu mel noonu ay kaadar yoo xam ne ay wootekat yi kese lañ ñoom lañ koy faral di defal ngir ñu xam nan la ñuy def ba mën a woote ci lislaam te woote ba jaar ca anam ga gën a jub maanaam méthode bi ñuy jaar ngir woote geneen wet gi ci des nag dafay wone daawal islaam yi moom ci boppam mooy lan yi mu làmboo ñu war koo xam xam ay roq-roqam xam dëgg-dëggam mooy lan sunu waxtaanu tey bii nag dafay mel ne dafa jëm ci ñaareelu pàcc bi maanaam dikkunu fii toogunu ngir di leen jàngal lu ngeen di daawa waaye dañoo dikk di leen xamal daawa moom mooy lan loolu la ñuy waxtaane moo tax mu jaadu ci commencement bi ñu xam al muraad bi daawa al islaamiya wooteeb lislaam dëgg-dëgg mooy lan kullu juhdin yabduluhu daaciya aw almuallim fi sabili tabshiri fi lislaami wa tabliigi risaalatihi suñ nee woote jëme ci lislaam mooy bépp effort boo xam ne kay woote wala kay jàngale mi ngi koy def ngir woo nit ñi ci lislaam ak jot li leen dëgg-dëggi lislaam mooy lan kon loolu am na ay forme yu bari ki ubbi daaraam di jàngale lislaam di jàngale alxuraan ak di ca yar ndaw ña kooku am jàngalekat la waaye mi ngi daaw ki yor jàkkaam yor ay duróosam di jàngale ajjuma jot muy xutba léeg-léeg mu julli ba noppi mu toog nit ñi di ko laaj kooka la muy def mu ngi ci daaw ki yor ay laay biiram donte nekkul koo xam ne daa jël waxtoom lépp jox ko daawa waaye yàlla baaxee na ko ci dara ci xam-xam mu nekk ca liggéeyam fu mu gisee ku jàdd wala ku def lu dul noonu mu jubbanti na loola ci daawa ci la bokk yëkkati dara sax jox ko nit xamal ko ne ko lii ci turu lislaam da ko jox loolu ci daawa la bokk te turu lislaam mooy mu xam ne lii yàlla moo tax nga di ko def dajeeg sa mbokkum jullit sax leeral sa kanam ci xar kanamam jëfleenteeg moom jëfleenteeg bu rafet mu xam ne lii jikkoy lislaam la mu mën koo roy loolu ci daaw ci la bokk kon forme yu bari la am bépp effort wala ab mouvement yëngutu wala lépp loo xam ne nit a koy def ci turu lislaam te fekk luy bégloo nit ñi ci lislaam di leen ci xëcc di leen ci indi la loola ci biir daawatu lislaam ci la bokk loolu nag bokkul ak daawal mutaxassisa bu ñu ne daawa boo xam ne dafa spécial mooy koo xam ne daawa ci lislaam mooy liggéeyam imaam la wala daaya la moo xam ne bu ñu ko mën a jox kooka ñooy spécialiste yi ci daawa waaye yow ma nekkul spécialiste kat bu mu tax mukk nga jàpp ne munoo daawa ci lislaam fa nga nekk ak fu mu mën a doon mën nga faa wane jikkoy lislaam nit ñi roy la ca loola bu dee ku duggul woon ci diini ci mu dugg ca bu dee ku xamul woon mu xam bu dee ku sore woon sunna mu jege ci sunna ngir sa jëflante boobee loolu moo tax léeg-léeg kay nekk ca jàkka ji sax di xutba wala muy def yoreen effet ba muy def la nit ñi jariñoo ci moom léeg-léeg ku àggul ci moom ci xam-xam mën naa dem ba dugal ci ay nit ci lislaam wala ci sunna ñoo xam ne ñoo ëpp la muy dugal ci lislaam ndax fekk la muy jokkool ci nit daa gën a yaatu daa gën a bari ba noppi mu won leen ci jikkoy lislaam ak i melokaanam loo xam ne da leen di xemmem loo ñu dugg si ca lislaam donte bu ñu dugg see ba noppi nag foofa la mën manam yem su ko defee borom xam-xam yi door a jël ña dugg si ci lislaam door a jëflante ñoom ci jàngal leen ak xamal leen ak leeral leen waaye it loolu noonu mu nekk lu positif am solo lool safaan bi it noonu la mën a amee maanaam am na ñoo xam ne dañuy dàqe ci lislaam mooy safaanu woote dàqe googu ci lislaam néew na nit di taxaw di yëkkati kàddu naan bu leen ñëw ci lislaam loolu kenn du ko def waaye da nga gis koo xam ne jëfiinam ak waxiinam ak jëflenteem day dugg ba ci biir ne man yaakaaroon naa ne diine ji melul nii nekkati nii la mel fekk waaja la jël atte ko diine ji te fekk waaja moom la jikkoom mel moom am na ñoo xam ne seeni jikko dañuy dàq lislaam bi léeg-léeg nit yaakaaram tas ci nit far tudd yaakaar ju tas ci lislaam far ak sunna fekk jëflante bu ñaaw moo ko waral léeg-léeg mu dal ku jigéen digganteem ak borom këram ay jikko yu ko bett yoo xam ne yu mu rafet rafet woon ay jikko moo taxaw bu ñëw ànd ak moom léeg-léeg mu dal it góor ci diggante ak soxna si jikko yu rafet mu dugg ba ca biir mu bett ko gis jikko yoo xam ne bokkut ak yam yaakaaroon seenub sëy yàqu ca waaye du yem ci yàqu waaye ki nga xam ne mooy ku jigéen ko wala ku góor ki dafay daal di jàpp ne moom mii kat sunna bi mu yaakaaroon ne nii lay defare nit nekkati mun ko defar nit su boobaa sikki sàkka la koy indil ci sunna wala ci lislaam ci bopp loolu moo tax képp kuy yëngatu ci lislaam wala nga yor comportement diine war na am melokaan woo yor woo xam ne doo tas yaakaari doomu aadama yi ca la nga tey la nga nekk wala soo juumee yow nga xamal ne man nii maa juum maa juyoo sunna maa def naa ko waaye lii du alquran du sunna lay mosi ko noonu mooy def noonu ba àggal wëlbati ko di ko défendre nag di wutal sa bopp ay lay yoo xam ne da ngaa bëgg a wane ne lii ma def diine nangu na ko foofu ngay indee ak njaaxum kon daal loolu mooy gàttalu définition woote ci lislaam tomb ba ca tegu mooy ahdaafu addaawa al islaamia objectif yi nga xam ne moo tax nag lislaam ab wooteem jóg ba ca jëkk moo di taxqiqu l ubudiyati lillahi taala fi l ard bu ñu waxee taxqiqu l ubudiya nag mooy nit ñépp nañ nangoo doon jaami yàlla mooy kàddu tawxid na yëkk di ko fépp ba kenn ku nekk lu sa xam-xam gàtt-gàtt moom da nga xam ne yow nii jaamu yàlla jaamu yàlla nga boo xam ne moo gàddu sa lépp ba nga juddoogul ba keroog ngay wuy ji sa borom moo la gàddul sa lépp sa dund sa lekk sa naan sa jaww ji ngay noyyi xéewal goo am ku ne lépp lu nekk ci yéen ci xéewal mi ngi jóge ci seen borom tabaraka wa taala loolu lu xam-xam gàtt-gàtt nit war na koo xam kooku mooy tomb bi jëkk ci tax di xuloo su fekkee nit ki xam na loolu ne boroomam tabaraka wa taala moo ko gàddul léppam ci kaw suuf te pare na ca loola gàddu na ko ba noppi la ca des mooy ne man kat kon nekk xeetu jaamu yàlla rek laa ko war a defal mu xam ne yàlla dong la ñuy jaamu muy jaamu sunu borom tabaraka wa taala képp te bañ a jaamu leneen lu dul moom waxdahu la sharika la tomb bu ci nekk ci ahdaaf yi may tudd danañ ci dellusiwaat beneen yoon ndax tomb bu ci nekk objectif yi may tudd mu nekk juróom-benn bu ci ne dafa am ay muqtadiyaat dafa am lu mu laaj jàppal ne bu njëkk bi daal moo di wéetal sunu borom tabaraka wa taala jaam yépp nangu na jaam yàlla lañ ci kaw suuf ñaareel bayaanul xaddil faasil bayna al xaqi wal baatil fi qadaaya al ictiqaad wal ibaadati wa suluk ki jóg di woote bokk na ci ay objectif am mooy na dëgg leer lay dëgg na leer ba ñépp xam ne lii dëgg la lii caaxaan it na leer ba ñépp xam ne lii caaxaan la leeral boobu dafa doon jubluwaay ndax nit ñi li fekk dëgg leerul ci ñoom li ñuy tudde al xujja muy aw lay wala paxta dalagul ci seen kaw ndax xamuñu ku xamut moom lu nekk mën na caa dugg waaye nag dafa war a xam dëgg dafa war a leer caaxaan leer loolu nag buñ koy wax lu aju ci wàllu pas-pas dana ci dugg muy pasteef bi dox diggante nit ki ak boroomam digganteem ak yorente bi digganteem ak àllaaxira digganteem ak lépp loo xam ne lu ñuy fas la waaye ci wàllu jaamu yàlla it dana ci dugg fan la ñuy jëlee li ñuy jaamoo yàlla foofu dëgg ak caaxaan dafa war a leer ndax bu ci nekk dëgg dafa nekk caaxaan nekk suñ ko jëlee fan ko war a jëlee muy alxuraan ak sunna bu rabbi noonu koy defee loola itam dañ ko war a xam dafa war a leer bu dee ci wàllu jikko moom itam la ca doon dëgg dafa war a leer la ca doon caaxaan war a leer ki jóg di woote nag jubluwaayam la hadafam la mu fas yéene yooyu yépp leer maanaam dëgg ak neen ñu leer ci mbirum pas-pas ci mbirum jaamu yàlla ci mbirum jikko ñetteelu objectif bi moo di nashrul islaam wa tarsiixu daaim salaam ala kulli ardin manna allahu taala ala ahliha bi qabuli hada ddin wal ayshi taxta zilaalihi bokk na ci objectif am moom mu jóg di woote moo di nag na lislaam tasaaroo maanaam tasaare lislaam ca nam war a tasaaroo ndax loola mooy tasaare jàmm tasaare lislaam mooy tasaare jàmm ci kaw suuf moo tax ki jóg di woote dafa def ci xolam ne na lislaam tasaaroo fépp ci àdduna ànd ak jàmm ji nga xam ne moom la lislaam làmboo ba àdduna bépp ànd xam ne lislaam mii diini jàmm loolu mooy itteem ñeenteel ba moo di taswiyatu turaas al islaami al maktub mimma aliqa bihi min al fikri daxil lépp loo xam ne dugal nañ ko ci lislaam te bokku ci bokk na ci jubluwaayu kay woote mooy loola na ci génn nga xam ne lii bokku ci loolu léeg-léeg mën naa doon lu ñu bind mu doon ay téere yoo xam ne nit ñaa ngi koy jàng defe ne lislaam la te fekk lislaam waxut loolu mën naa doon ay pas-pas yu ñu tasaare ba nit ñi gëm ko te nekkul ci ay téere waaye du noonu war naa bokk ci liggéeykatu lislaam kii woote raxas loolee ca xel ya ba lu bokkul ci lislaam danañu xam ne bokku ci lii moo bokk ci lislaam waaye lii bokku ci juróomeel ba tarbiyatu jiili saxwa wa irshaaduhu ila axsani subul wa aqwamil manaahij gannaaw boo xamee ne sellal nañ li ñu tudde adduraasul islaam yi muy li fi nekk ci ay téere yuñ bind ak ay xalaat yuñ tasaare fexe ba lépp sell ba dëppoog dëkk su boobaa beneen jéego jógaat mooy yar ndaw ñi yar ndaw ñi ak jubbanti leen ngir ñu jaar ci yoon bi gën a jub yoon wa gën a jub nag weesuwut manhajul quran wa sunna ala fahmi salafil umma yoon bi nga xam ne moom la alquran xàll ak sunna te mag ñu baax ñu jaaroon ca loolu rek mooy mooy méthode bi gën a njub te bu boobaa ca la ñuy yar ndaw juróom-benneel bi te mooy bu mujj bi moo di jamru kalimati almuslimin ala kitaabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ala fahmi salafi saalih bokk na ci jubluwaayu wootekat bi mooy askan wi xeet wi nation bi nañu bennoo ummatul islaam nañu bennoo na seen kàddu nekk genn ñi dëppoo ci jàpp ci alquranul karim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku jubluwaayu kay woote ci lislaam la juróom-benn objectif ak yoo yoo xam ne benn bu ci nekk jubluwaay la ci jubluwaay kii woote jëme ci lislaam tomb ñetteel bi moo di muqtadiyaatu ad-da'wa al-islaamiyya tomb yooyu benn bu ci nekk wax naa ne am na lum laaj maanaam am na ay jéego yoo xam ne des koo war a def ngir loola am kooku mooy muqtadiyaat buñ jëlee objectif bu njëkk bi muy taxqiqul ubudiyati lillahi taala muy na ñépp ànd xam ne jaami yàlla lañ te nangu koo jaam kooku laaj na ay mbir benn taalimu nnaasi xuquq allahi taala ala ibadihi wa tarbiyatuhum ala mahabbatihi wa taatihi yar ñi ngay yar ñuy doomu aadama yi yar leen ci ñu xam maanaam jàngal leen ba ñu xam ak ci sunu borom tabaraka wa taala li yàlla moom ci yow nga xam ne sañoo koo jox kenn loolu waaw ñu jàngal ko nit ñi nag ba ñu xam ko yoon bu ñu mën a sóobu nag ba jàngal leen ko moo xam ci école wala moo xam ci jàkka ja la moo xam fu mën a doon waaye jullit bi moom war naa xam ak yàlla mu xam ne lii yàlla moo ko moom bindeef moom mu yemale ko ci suñu borom tabaraka wa taala ak it yar leen nag ci ñi bëgg yàlla ñi bëgg suñu borom tabaraka wa taala ñu bare bari dañuy wax mahabbatullah ñu bëgg yàlla bëgg yàlla waaye yàlla nuñ koy bëggee ñu bari nag xamuñu ko bëgg yàlla faaw mu ne ci xol bi yëmul rekk ci ne yàlla santaane na julli man danaa julli kon bëgg naa ko santaane na koor man danaa woor kon bëgg naa ko nangam nangam waaye nit ki dafa war a toog xalaat ci boppam moom mii li ko yàlla defal lépp ak yërmaande yàlla ci moom fi mu àgg ci moom ak inaayatullahi muy itti sunu borom tabaraka wa taala ci sàmm ko ak fekk ko ak jàppale ko fi mu àgg ci moom bu ko xalaatee day yëg ne moom dafa lab ci géejug ay xéewal ngoo xam ne fu mu toll day fàttaliku boroomam di ko gën a bëgg xolam di gën a aju ci boroomam boo toppee kenn ku nekk boo xoolee sa bopp fa sa mbir tàmbalee ba nga nekkee ci sa biirub yaay génn koo ci àdduna suñ borom tabaraka wa taala tàmbali di la sàmm sàmm ci place ba mu la dugal foofa ñuy gëstu ci xam-xam boobu gis nañ ne fa ñu dugal doomu aadama ji boobu climat ba fa nekk lu ci yàqu woon lu tuuti tuuti walla leneen dugg ca lu ca warta dugg rekk kon mu faatu maanaam nii nit mën a nekk fii jekki ba mu yàgg ñu ne ngelaw li yokku na bari na mu di ko noyyi di ko supporté léeg-léeg ñu ne xet gi doon ñëw soppiku na nekk xet gu neex walla mu nekk xet gu naqari mu mën ko supporté kay dund ci biirum ndeyam mënut a supporté yooyu amul ngelaw luy yokk amul luy wàññi même sansu ngelaw li ni mu toll noonu la toll du yokk du wàññi ba keroog muy judd xet gi koy xeeñ genn la amul yokk amul wàññi ñuy jël ci jigéen jooju la muy lekk ak la muy naan ñuy segg la ca gën a sell loo xam ne bu duggee ci biir lépp day rees xam nga yow nit gannaaw boo juddoo li ngay lekk mu dugg ci sa biir da cee am loo xam ne dañ koy sekk mu doon lu am njariñ mu dugg ci saw yaram di daw ci sa deret cër yi kenn ku ne jël ca wàllam xol bi jël wàllam neer yi jël seen wàll cerveau bi mu yuur gi ne ci bopp bi kenn ku nekk jël sa wàll ci ñam wooy bi mu lekk la ci amoon njariñ ñu sekk ko mu génn bu dee ndox mu jaar ba ndox bi jaar bu dee lu ñuy lekk mu jaar ba dugub di jaar génn lu am njariñ loolee nga xam ne damaatut lu ñuy sekk muy génn nag ci li ñuy jëlee ci sa yaay def ko ci yow muy daw ci saw yaram nga xam ne aajowoo yow ñuy sekk moo tax ki ëmb ki ñu ëmb te génn gut du dem ba mu yàgg muy tuur ndox wala muy tuur dugub ci biirum yaayam ànd ak ne ma ngay lekk lu mel ne la yaayam di lekk waaye la sell loola lañ koy defal teg ko ci béréb boo xam ne dañ koo aar gannaaw bu climat boobu jàllee wut ay yax yu ko séq yoo xam ne ak accident sax mën naa am wala yaasu billaah soxna soosu mën na ci daanu wëlbatiku def nu nekk waaye jëmm jooju ni mu tëddee dara du wëlbatiku ndax noonu lañ ko téye tey ngir mu àgg ci mu di ca gaañoo tam doonul lu yomb ki la sàmme noonu di sàmm sa waajur boobu ba dara du ko dal ba àgg ci ponki lislaam yi sax lu toll ne koor day ñëw ngir sàmm sa àq yow mi ci biir bi ñu ne jigéen ji ah yow kat koor àq yàlla la te ci ponki lislaam la bokk waaye lii nekk ci sa biir bi tax na del lekk ka naan ndax moom daa war a lekk ka naan moom wóoru kon bul woor di ko lor kooku defe naa ne droit de l'homme wala droit de l'enfant yi ñuy wax àggagut foofu sàmm gone goo xam ne bu juddoo ñu ne la del lekk del naan ba yeneen jëmbi jamono ndax daa am ku nekk sa biir koo xam ne dafa am droit ci lekk ak naan ki la bëgg bëggeel ku toll noonu nga génn mu di la sàmm tàggat ay loxo ñu bëgg la nanguwul kenn ku la jege loo soxla boo feebaree duñ nelaw di ko def ba nga màgg xëy di doxal sa bopp xëy di dem xëy di dikk mu tàggatal na yépp yoo xam ne yoo soxla la mu di la ko defal boole ko yërma yërëm la yërmaande yoo xam ne kenn mësu koo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés dafa gis jigéen yoo xam ne dafa jël doom ji def ko noo xam ne taf ko ci dënn mbëggeel boo xam ne jéggi na daal mu ne leen ndax jàpp ngeen ni jigéen jee ngeen di seen dana fab doomam ji sànni ko cib taal li ko jee loolu mënta nekk mu di leen waat naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk ne ni leen yàlla yërëme moo gën a tar ni jigéen ji yërëme doomam kooku mooy diggante sa borom ak yow booy bëgg sa borom dafa am ay maanaa yoo xam ne foofu la tegu waaye nekkul rek ci ne yàlla kat man moo ma bind sant na ma ma julli ma woor nee na naa mel ni nee na naa ko bëgg kon nag naa ko bëgg déedéet du loolu da nga war a xalaat bu baax ci li tax nga di ko bëgg gën naa xóot loolu kon tomb bu njëkk bi ci muqtadayaatu pour nga mën a fexe ba ubudiyatullahi muy jaamu yàlla képp ne ci kaw suuf ak nangu ne moom mooy sunu borom tomb ba ci njëkk mooy faw nit ñi ñu xamal leen ne borom bi kenn la waaye ñu yar leen ci ñu bëgg ko mbëggeel googu day jur yi ci des yépp yomb topp gi day daal di yomb su la teree bàyyi gi day daal di yomb ci yow ndax sopp soppi moo lay digal moo lay tere da ngay xam ne digalu la ngir metital la waaye daf lay digal ngir jariñ la bàyyiloowu la it pour ngay bàyyi loola amal njariñ lu mu ne la bàyyil rek lu lay lor la kooku lu ma ta bàyyi xel ñaareel ba taalimuhum xuquq al mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tarbiyatihim ala mahabbatihi al mahabbata saxiha bu loolu jàllee muy àq suñu borom tabaraka wa taala faaw nag ñu jàngal nit ñi it àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yar nit ñi it ci ñi bëgg ko bëggeen wu wér moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam li ñu waxoon fee rek moom la ñuy wax fii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faw ñu jàng ko jàng ak dundam jàng siira ndax suñ jàngul siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ak dundam ni mu doon jëflanteeg jullit yi lu jiitu loolu sax ni mu doon jëflanteeg alxuraan ci jàng ko ak dégg ko ak jëfe ko ak ni mu ko doon firee ci waxam ak ci jëfam déggiin wi mu amoon ci alxuraan suñ jàngul dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko xam léeg-léeg nga ñëw ci alquran tiim laay joo xam ne da nga naan yii laay moom wax dëgg yàlla lëj na mënuma koo xam léeg-léeg sax nga fekk ay boromi xam-xam di ci werante ñu ne lii nii la war a doon nii nii la war a doon lu mel noonu amul benn solution lu dul ñuy xool ki ñu wàcce woon ci moom laay ji moom biñ ko wàccee ci moom nu mu def boo delloo ci siira daal di xam nan la ko déggee moom nu mu jëflante moom léeg-léeg nga dégg ku la ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na umirtu an uqaatila annaasa xatta yaqulu laa ilaha illa allah dañ maa digal ma xeex ak nit ñi ba kere ñuy wax laa ilaha illa allah di loolu xadis bu wér la mu kay borom bi tabaraka wa taala nee na laa ikraha fi diin qad tabayyana rushd min al ghayb yàlla nee na diini kenn ci force kenn nit ki sañ naa tànn lu ko neex léeg-léeg nga gis ku la ne lii moom xaw ma nu su koy déggee foo mën a xam nañ koy déggee mu jàllal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nu mu ko déggee woon ndax bi muy woote daa ñëw yor jaaseem rek ne ko waxut laa ilaha illallah ma rey la daal di tàmbali di rey déedéet defewu ko noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan yónni nit bu la neexee nga jël Ali ibn Abi Talib ba mu ko yónnee Xaybar menn misaal la ci la mu koy wax mooy demal boo demee nga woo leen ci lislaam ak jàmm te jamono yuy wax état la yor boo xam ne état bu tàlli la bu yaatu la bu sori la ñooñee muy wax ci biir état bi lañ nekk ni ci dund te duñu ay jullit mu ne leen boo demee ba àgg ci ñoom woo leen ci lislaam suñ duggee ci lislaam alhamdulilah loolu moo gën ci ñoom ndax loolu la yàlla bëgg ci ñoom suñ duggul ci lislaam te nekk ci diine bàyyi leen ci seen diine waaye nag nañ joxe day gis yéen mooy impôt yi ñu war a joxe ndax dangaa nekk ci suufu nguur boo xam ne daf la gàttul sa lépp di la aaral sa kaaraange kon faaw nga joxe impôt suñ lànkee ne duñ joxe lempo nag ba noppi di gàllankoor taxaw bi su boobaa boobu la xeex bi di dikk ci appliqué application yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tatbiqam lislaam noonu la ko doon doxale dikkul rek yor jaasi ne tey ngeen duggoo la ma rey leen ànd ak ne boo doon jàng xadis boobu te déggi ko déggiin woowu da nga naan umirtu an uqaatila annaasa xatta yaqulu laa ilaha illallah dañ maa digal may xeex ak nit ñi ba ma ñëw laa ilaha fekk déggiinu xadis bu dul du mooy li nga jàpp waaye moo di nit ki lu mu dëng-dëng ba xeex war sa diggante ak moom jaar nga ci état bi yépp ba xeex a fi des ay nit lañ yoo xam ne xeex moo dox seen diggante yéen jullit yi ak ñoom xeex boobu su xasee tàmbali lan moo koy xam mooy ñu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna rasuulullaah suñ ko waxee xeex amatul foofu soo dikkoon ba tiim ko bëgg a dal ci kaw mu ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amatoo droit ci moom moo tax mu ne fa in qaaluha asamu minni dimaahum wa amwaalahum illa bi xaqi suñ ko xasee wax mucc nañ seen deret mucc na seen alal mucc na kooku mooy kan mooy ki nga xam ne jaaroon nga ci état bi yépp ba àgg ci xeex sës ci mooy ki nekk ci biir état bi di dund ba noppi lànk na ne du joxe àq yi nga xam ne moom la ñu war a jox état bi ba noppi ku taxaw ci kanam daaw bi ne du jàll kooku pexe amul ci su xas xeex amee nag ci diggante boobaa su boobaa la ko mën a fànq wala mu arrêté ko mooy shahaadat wa laa ilaaha illallaah wa loolu misaal la rek ci wone ne faaw ñu jàngal nit ñi yar leen ci xam siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñu mën a dégg diine faaw ñu bëgg ko it nag moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen du gëm lu dul ma doon ki ko gënal baayam gënal doomam gënal ko mboolem nit lu tax mooy lim la andil bàyyi da koo indiwul doom indiwul nit indiwul ku dul moom moo di alhidaaya gindiku ci kaw suuf réer lu ko gën a metti ci kaw suuf amut rawatina réere diine muy réer gi gën a metti rawatina réere diine ba noppi bëgg ko nag am nañu di réere diine te bëgguñu ko seen yoon nekku ci ñooñu seen lor moom fëleel waaye du fii buñ dajeek seen borom boobu la seen musiba nekk waaye ginnaaw seen yoon nekku ci ñoom ñu ngay dund seen dund àdduna seen yoon nekkul ci diine ji waaye ki nga xam ne dafa bëgg diine ji ba mu jaral ko lu ne di ci napp nappi ba noppi xamul kooku moo sonn moo tax gindiku gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi wa in tutiicuuhu tahtadu gi suñ borom tabaraka wa taala wax su ngeen ko toppee da ngeen génniku alayhi salaatu wasalaam kooku xéewal la boo xam ne kenn mënu koo nattale ndax moo la génne mina zulumaati ila nuur balaa jëli ci ak lëndam yóbbu la ci ak leer dafa mel ne nit ñi dañoo nekkoon ci ab néeg boo xam ne dañoo tëj bunt yépp fay làmp yépp xamoo koy lekke xamoo koy naane xamoo fu bunt féete ñuy raj rajloo di fénqaloo ku yëngu sa bopp dal ci kaw boppum nit ku yëngu sa bopp dal ci poto mu jekki-jekki dugg ci seen biir taalub làmp làmp bu leer naññi boo xam ne boo xoolee su moroom gis ko xam ko mu doon booy dox mën a dox siraatul mustaqim duutoo bëgg poto duutoo bëgg doomu aadama loolu mooy génne nit ñi ak ci lëndam yóbbu leen ci ak leer nit ñi li fekk dunduñu lislaam ci lëndam bu mel noonu lañ nekk lorante la ñuy def xasante saagaante mbëkkante lu waay manal sa moroom ci deretam ak alalam def ko ko su leerul lislaam dikkee nag ci li ñuy defee xefeet ñoom ñëpp yow ki la andil lu toll noonu nag boroomam tabaraka wa taala wàcce ko ci moom mu ñëw daj lu ne ngir jottali ko ba mu agsi ci yow jottali ko yàlla barkeel ko muy dox ba agsi ci yow gannaaw junni at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett nga di ko dund tey kooku boo xalaatee ci moom ak la mu daj nga door a jot ci loolu ak li ay doomu aadama daj gannaaw bi nga door cee jot kooku da nga ko gën a bëgg da nga gën a bëgg yu nekk ñetteel ba ci muqtadayaat yooyu gannaaw boo xamee ne jàngale nañ àq yàlla jàngale àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faaw ñu leeral nag safaanub loolu safaanub àq yàlla mooy bokkaale safaanoo xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy biddaa ndax li mu indi kat mooy sunna ku ci jaar bëgg nga yonent bi yaa ngi ci yaa ngi koy topp waaye ku mooy sunna kat bàyyi ko fële yaa ngi ci biddaa ku bëggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte nee nga bëgg nga ko nag bëggoo ko ndax soo ko bëggoon jaar ci tom jaaroon wala nga bëgg lim indi woon waaye doo sosal sa bopp su yëg kon faaw ñu leeralal nit ñi ne bokkaale ak biddaa ñaar yooyu ñooy bañu jullit léeg-léeg nga dégg ñu ne askan sàngam seen bañ mooy duñu lekk nàngam dañuy bañ nàngam ñu sant nàngam duñu lekk nàngam lu tax ñu ne seen bañ la loolu ay aadaa ci cosaan la waaye jullit bi nga xam ne boroom tawxiid la boroom sunna la mbañam mi nga xam ne moo ko mën a yàqal diineem mooy bokkaale ak biddaa moo tax ñaar yooyu damay wax ne ku ci mucc fer nga ijji ci diine maanaam àgg nga ci fer ijji ci diine mënee sa dula cee nax léeg-léeg nga gis na ku ci fer ijji koo xam ne àlluwaam soriwut lool jàngul lu bari waaye góor-góorlu na ba bokkaale moom kenn mënu ko ci dugal góor-góorlu na it ba biddaa kenn mënu ko ci dugal te àlluwa ja soriwut na nga gis borom àlluwa ja sori yoo xam ne téere yu bare bare bare jàng na ko waaye bu xëyee ba ngoon ci bokkaale lay woote bu xëyee ba ngoon ci biddaa lay woote kooku fëragul ij la mokkal li muy bari bari bari fëragul ij fer ij bu ñu ko waxee ci ña nekk ca daara yi mooy gone gi nga xam ne bu xoolee mën a jàngal boppam mën a liiral boppam boo ko ne baat bii lu mu mu liir ko ki fëragul ij mooy koo xam ne bu tiimee baat bii du ko mën a liir boroom xam-xam bu bari bële di bokkaale ak a nekk ci biddaa lu xam-xamam bari bari bari kooku mën a wuta liir ci diine xamul ndax dafa am lu ñu tudde al fiqhu fi diin dégg diine bokkul ak jàng ay téere wala jàng aw làkk mënees naa jàng làkk ba dàq ko làkk nit ñi te fekk diine moom zéro lu bari nag ci suñu mbooloo mi nit ñi day sax xàmmeewuñ ku ku jàng arab ak ku jàng diine am na fi ay nit ñoo xam ne dañoo demoon jàngi arab ñii mbay lañ jàngi woon ñii mécanique lañ jàngi woon waaye ci kàllaam ak arab lañ ko jàng ñii médecine lañ jàngi woon ñii nàngam boo ñibbisee fii ci askan wi ñu ne ah kii fu mu jàngee ñu ne kii kat moom keer la jàngi woon wala Maroc wala nàngam lu ne ci seen xel ci masala yi diine jàpp nañ ne war nañ ko ko mën a laaj lu tax mooy jàng na arab loolu mooy dañoo jàpp ne làkku arab yi dafa lënkaloo ak diini ji te xamuñu ne am na ay arab yoo xam ne ñoom seen bopp arab piir lañ te duñ ay jullit sax faf ay nasaraan lañ wala yahuud lañ wala ci yeneen diina lañ nekk kon làkk wi dëgg la làkk wu tedd la ndax alxuraan ak sunna ci làkk wi la nekk waaye nag bul jàpp mukk ne ku jàkk làkk ku jàng làkk wi ku nekk boroom xam-xam la ci diine diine dañ koy jàng comme ni ñuy jàng yeneen yi ci des suñ benn cheikh bu baax ndeysaan nee na ci réewum Afrique ngir séenu fonk làkku arab nee na cinéma yi am nay jamono bu fekkee ne dañoo publicité film bu ñu war a def ñu ne film bii ci arab lay doon ne nit ñi bu ñuy dugg ci cinéma bi dañuy sumi seeni dàll ci bunt comme niñ koy defee ci jàkk lu tax ndax arab la ñuy làkk ñu jàpp ne loola diine la kon loolu moo lay wan jaxase ki nga xam ne day am faw nag nit ñi fer ijji ci diine ji fer ijji ba xàmmee luy diine ak loo xam ne lii aw làkk la luy diine ak loo xam ne lii aw askan la arab ci boppam aw askan lañ doon ay réew réew moo ci dem am nañ ay aada am ay cosaan am ay nangam am ay nangam loola it buñ ko jaawalee diine ji la maanaam góor-góorlu ba xàmmee lii nga xam ne aaday arab la wala cosaanul arab la wala sax aaday réew sàngam la wala cosaanu réew sàngam la nga xàmmee ko ak li nga xam ne diine la diine moom diine la tudd waaye bokkut ak loo xam léeg-léeg nag am ñu xaabaabal foofu ba jéggi dayoo ba yi bokk ci diine ji sax ñu jàpp ne aaday arab la wala cosaanul arab la loolu it yomte la dëgg la am na ay aada yoo xam ne ci ci arab yi aada yu xóot yu doy waar yoo xam ne boo ko jàngee doo xam lu mu doon am na ay dëkk yoo xam ne ci dëkki arab yi tey mën nga faa nekk une semaine boo doon dox di dem ci marché di dugg di génn di dem ak ñëw doo mos a dajee jigéen lu tax mooy jigéen ñi ñu ngi tëju ci kër mas nañoo am dëkkandoo yoo xam ne day ñëw di jàng si année scolaire bi di dellu ca dëkkub kawam buy dikk soxnaam lay àndal yàlla dogal na mu nga dëkk ca kaw noonu dëkk ci premier étage bu école ubbee bu xasee ñëw ba soxnaam yéeg ca kaw bu wàccaatee mooy bu année scolaire bi jeexee ba école tëj muy wàcc di ñibbi loola sàmm jigéen lañ ci jublu jàpp nañ ne it lii mooy li gën xëy na it mooy li gën allahu alam waaye nag ñu xam ne aada ñu xam ne aada waaye diine lim jàngale mooy jigéen dana génn dana dem lu tax ñu digal ko muy muur wa qarna fi buyutikunna la suñu borom tabaraka taala wax loolu mooy lan nekk ci kër yi wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa loolu kañ lay doon su ngeen génnee toog leen ci kër yi waaye su ngeen di génn bu leen feeñal seen taar loolu la alxuraan jàngale kon jigéen ñi dana génn jigéen dana wax ak nit ñi wa qulna qawlan ma'ruufa aw mu wax waaye day wax nag wax ju jub wax yoo xam ne amul sewal baat amul way amul nangam amul kon tomb bu am solo la boo xam ne dañ ciy junj rek ñu xam ne diine ji faw ñu fer ci ij ba xàmmee li ci bokk ak li ci bokk xàmmee diine ak aada ak cosaan xàmmee bokkaale ak lu dul bokkaale xàmmee sunna ak lu dul sunna yii kenn ku nekk war na caa góorgóor ñetti tomb yooyu yépp suñ ca góorgóorloo muy xamle xaq yàlla xamle xaq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nit ñi lan mooy safaano bu yooye muy bokkaale ak biddaa jàpp nañ ne kon tomb bu njëkk boobu objectif boobu ay muqtadayaatam day daal di mat yi nga xam ne suñu amee moom mu mat muy taxqiqul ubudiyati lillahi subhanahu wa taala ñàkk yooyu day daal di mat ba ca tegu mooy ñaareelu objectif bi ñu waxoon ne mooy bayaanul xaddil faasil bayna al xaq wal baatil ngir ñu mën a leeral dëgg ba mu leer leeral caaxaan ba mu leer ci buntu pas-pas ak jaamu yàlla ak jikko kookoon am na ay muqtadayaat maanaam am na lu mu laaj loo xam ne faw ñu def ko loolu door a mën a am yooyu mooy lan ba ci jëkk taalimu nashi وتربيته تربية إسلامية تتناسب مع سنه ndaw ñi faw ñu tàmbalee ci ñoom ndaw ñi gën a ndaw toll ci xàmmee toll ci di màgg toll ci di xalaat ñu yar leen yarub diine yar leen yarub lislaam loolu mooy teer leen a defar lii ñuy def nii nit ñi góorgóorlu ñubbi ci njàngoom alxuraan alxuraan ñu ngi koy jàng ci suñu réew mi bu baax bal ñu ngi koy jàng ci àdduna sax laay wax bu baax a baax loola la ca war a tegu mooy alxuraan yi ñuy jàng di ko mokkal di ko tari ñu yar leen ci yar boo xam ne yar bu sell la ngir ñu mën a tabax doomu aadama yu am njariñ yoo xam ne dafay jariñ diineem jariñu askanam jariñ am réewam daanu ci ñëw ci kanam ndaw ñi tey seen seen culture maanaam seen xam-xam seen culture générale boo leen koy laaj ci ngay xam fi ñu toll ñu bari ci ndaw ñi tey ànd ak média bi li muy def ci ñoom nga xam ne daanaka mooy tànkukaay xam-xam tey gone gi mën ngaa ñëw di ko laaj lu bare bare bari ci culture lu aju ci diineem du ca xam dara ay turi saxaaba boo ko laajee mën na ko bañ a xam ay maamam sax ci réew mi mu dëkk boo ko laajee du ko xam ñan ñoo fi indi diine ji yan étape la diine lislaam jaar mën na caa bañ a xam dara nga laaj ko ab footballkat wala dawkat boo xam ne fa mu dëkk ak fii mu dëkk moom kenn xamul nang ñaata junni kilomètre kenn xamul ñaata junni kilomètre mu man faa jël kenn koo xam ne ab ab ab footballkat la wala dawkat la wala leneen kat léeg-léeg sax wala yaas bi la woykat mu mën laa xoox dëkk ba mu dëkk at na mu judd soxnaam moom tudd kañ la takk soxna lépp lu aju ci dundam mu mën la ko wax culture générale am foofu la jëm loola nag doo wax ne moom daa jóg di gëstu lu bon bàyyi lu baax déedéet waaye dañ ko fekk fi mu nekk di ko jox lii tëlale kenn joxu ko ko loolu rek la ki bëgg a soppi loola nag mooy xool li nga xam ne xam nga ne lii suñ ko ko joxee mu baax nga fexe ba jox ko ko kon ndaw ñi faaw ñu delloosiwaat leen nag orienté leen ba li ëpp ci ñoom ñu wàññi ko li yées ci ñoom ñu yokk ko bañ mën a équilibre kenn waxul ne yii xew ci àdduna ba ko kenn xam ndaw li sañ naa xam li xew ci àdduna sañ naa xam ay nit sañ naa xam leneen ak leneen waaye nag bu mu réere aw askanam bu mu réere diineem na ko xam ñaareel ba moo di tafqihu shabab bi diinihim wa taarifum bi qadaya ummatihim ndaw ñi nga xam ne ñoo dem ba àgg ci shabab jeunes yi faaw ñu fexe bañ am fiqhu fi diin mooy dégg diine gi ma doon wax sànq man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin dégg diine bu baax waaye ñu xam nag problème yi xeer bi askan wi dëgg-dëgg lan mooy seeni jafe-jafe ngir mu mën a dox ngir saafara ko su fekkee ne xamu ko dafa réere askanam bi réere liy daw ci àdduna mën nañ ko jël dugal ko ci ay njaaxum yoo xam ne dana defe ne ci lu baax la jëm fekk ci musiba la jëm boo jëloon problème mu jihaad tey su jamono jii di dund ñaata nit lañ ci nax ñaata ndaw lañ ci nax ba dugal leen ci ay béréb yoo xam ne ñu ngi ci njaaxum yoo xam ne tey suñ ca mënoon a génn génn ci du mënatuñ caa génn lu tax mooy réere problème yi ndaw ci am ñàkk xam li xew dëgg dëgg dëgg mooy lan loolu moo leen ci dugal li xew doonut lu yomb problème yu laxasu la problème yu lëj la yoo xam ne la dugg ci biir kenn xamul nu mu toll ku jóg sànni sa bopp ci biir mooy sànni nga sa bopp ci biir teen boo xam ne bi ngay dugg àndoo ko goj te it amul goj bu lay delloo si waat da nga dugg te doo dil si waat moo tax jàngat li xew ba xam ko bu wér a wér boole ko ak teey ak dellu ci borom xam-xam yi ñu wax la li daw ci àdduna tey borom xam-xam yi ahlu sunna wal jamaa ak salafu saalih dañ daan wax ne fitna bu ñëwee ki ci gën a mucc mooy ki ci gën a gàtt ab tànk gën caa gàttu laal loolu la lislaam santaan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam junj na ko ci xadis ba nee na ki nga xam ne dafa toog moo gën a mucc ki taxaw ki taxaw moo gën a mucc kiy dox kay dox ndànk moo gën a mucc kay daw jëm ci loolu mooy fitna ci jamonoy fitna nag ci la nekk moo tax laaj na gàttu tànk laaj na gàttu làmb nit ñi nag kay tànk yi gàttatul làmb yi gàttatul nga gis ki wax ci loo xam ne xamu ci dara wax ba dugal ay nit ñu tàbbi ci njaaxum nga ñëw toogaat yow loolu la ñu gis kon faawu ndaw ñi ñu jàngal leen tawiyatu naas tawiyatan amma bi ma huwa daruriyun min umuri diin gannaaw boo xamee ne yar ndaw ñi gone yu ndaw yi ak jeunes yi muy waxambaane yi askan wépp nag am na lu ñu yeyoo ñoom itam war nañ leen a orienté jox leen conscience boo xam ne li mënta ñàkk ci diine faaw ñu xam faaw ñu xam ne diine fa des koy xamloo maanaam askan wi ak yow yow ma nekk ci sa atelier di liggéey wala nga nekk feneen wala nga nekk feneen nga xam ne yàlla dogalul woon nga jaar ci daara dogalul nga def teewut mën ngaa jàng ba li mënta ñàkk ci sa diine nga xam ko tey mooy jàpp ni na bul fàtte ne saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit da daan dugg ci lislaam fekk am na 60 ans léeg-léeg sax lu ko ëpp mu ñëw takkoog yonente bi alayhi salaatu wasalaam ab diir nekk fa di jàng bind de mënta bind mënta def leen waaye déglu la doon def déglu ba xame ca diineem fere ca icc dem jaamu ji yàlla mucc mucc na ci bokkaale mucc na ci biddaa jàpp na ci sunna jàpp na ci tawxiid mu doy sëkk mu daal di xam nu muy jaamu yàlla dem yoon loolu doon na minimum boo xam ne mënta ñàkk tey faaw ñu defal ko nit léeg-léeg nit ñi boroom xam-xam yi gàddul leen àq léeg-léeg ñu gàddul leen àq ndax dajale mbooloo moo xam ne soxla nañoo xam ci seen diine ay orientation ci seen biir diine nga toog sa waxtaan wépp jëm ci politique daanaka léeg-léeg mu daal boroom xam-xam diine politique tey ñépp a ko xam kooku yi nga dajale toog di ko kii nga xam ne moom amaan sax mënta jàng mënta bind ba watul mën na laa wax ci politique tey loo xam ne yow xamoo ko sax xaw ndax dafa tasaaroo dafa baawaan rajo yaa nga cay wax télévision yaa nga cay wax amuñu sax leneen lu ñuy wax daanaka rajo politique télévision politique site internet politique audio politique CD politique foo wëlbati bu fa nekk loo yëkkati politique yi fekk mu di ko wax su ko defee nit ñi politique la ñuy naan ba moo fees dell nag ci seeni xel kooku boo dikkee dajale ko ne ñii ni ngay waxtaan di waxtaanaat nag ci politique yaa ngi koy gàddul àq nit ñi dafa jaar ñu xamal leen ci seen diine loo xam ne danañ ci mën a jàpp am na objectif ñetteel bi muy nasrul islaam wa tarsixu daaimi salaam tasaare lislaam boole ko ak jàmm ji lislaam làmboo ñi jàngale ko kooku it am na bi muqtadiyaat bi ci jëkk mooy tarsixu maxaasin lislaam fi nufuusi afraadi l umma qabla gayrihim rafetaay bi nga xam ne moom la lislaam rafet maanu gim maanu jub gim jub ñu tasaare ko ci xeet bi ba ñépp xam ko balaa àgg ci ñeneen ñi sax waaye dañ ko war a tasaare ci àdduna ba àdduna bépp àndandoo xam ko kooku dafa jaar ndax kat lislaam lan yor fi mu nekk joo xam ne dañoo yàq ab deram fépp nag boo tuddee lislaam rek yaakaar nañ ne musiba maa ngi ñëw te lislaam gii di jàmmaloo ci jàmm ci la mos di woote loolu nag faw ñu delloo siwaat ko ci xeli nit ñi bañ xam ne diini ji diini jàmm la loola nag du doon waxi kese waaye jëf la jëf la jullit yi faw ñu am ay ay ay yëngatu ak i jëf yoo xam ne ku ko gis ku ne xam ne lii nitu jàmm ñoo koy def ngir ñu mën a raxasaat image boobu yi nga xam ne moom lañ sànni ci àdduna mu doon image bu salte boo xam ne tax na ñu bari jàpp na tey lislaam diine la ñoo xam ne li ko tax a jóg mooy tuur deret te fekk lislaam diine ñu sori loola la kon boobu mooy bi ci jëkk ñaareel ba mooy yee nit ñi ci maandu te gi nga xam ne lislaam moom la maandu ak sàmmoonte gi muy sàmmoonte ak intérêt yi bindeef yi léppam njariñ la li ñu tuddi jalbal masaalix wa darbul mafasid ci lislaam muy xëcc ci njariñ dàq lor lislaam diine la jox ne léppam lool léppam lool ba tax na su dara amee njariñ am lor bu lislaam comparé gis ne lor ji moo gën a bari day daal di tere loola gaa njariñ a ngi ci waaye am na lor waaye lor ji gën a bari kon bàyyi loolu ma ñëw ci yasaluunaka anil xamri wal maysir qul fiihima ismun kabirun wa manaafiu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafihima sàngara ak gàtt nee na danañu la ko laaj yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee leen bàkkaar bu mag a ngi ci ñoom ñaar muy sàngara ak gàtt ak ay njariñ la xoola boobu maandu ci ci àtte ak ay njariñ ah sàngara am na njariñ ok am na njariñ nee na carte am na njariñ noonu kay am na njariñ nit ñëpp teg nañ seenu xaalis kenn jongati ko yóbbu jariñu ko ki gañe yóbbu na xaalis ko te dana jariñoo xaalis ba wa manaafi'u linnaas la sàngara am nay doomu aadama yoo xam ne buñ ko naanut mënuñoo jàkkaarloog doomu aadama yi di wax seen message bi jàll te naan ñu sàngara moo tax bu mu la jaaxal mukk léeg-léeg waxkat yi ngay gis ñu lay yéem lool doonte wal iyaas billaah léeg-léeg askanu diine am ci ñuy wax ba wax ji di jéggi dayo ba mu wóor la ne am na dérapage yoo xam ne lii moom da ngay xam ne ku ànd akum xelam du ko def su boobaa xamal ne ku feebal la kuñ tàggatul ci wax ak doomu aadama yi la mu ànd ak complexe mënut a wax ak doomu aadama yi mu jël la mu jël door a ñëw ci biir loolu loolu am na ay firnde ay exemple yu bari yoo xam ne amuñu ci sikk sàkk yàqeen liñ ci am kooka jëriñ na ko wala déet jëriñu na ci kon suñu borom tabaraka wa taala ci maandoom jógul ne sàngara kart dara baaxu ci waaye dafa ne am na ay njëriñ waaye dafa am bakkaar bu bari borom bi wëlbatiku ne wa ismuhuma akbaru min nafihima seen bàkkaar nag moo gën a rëy seen njariñ lu ca tegu mooy araamal ko araamal ko kon lislaam noonu lay noonu lay jëflante ci ak maanu bu dee àtte nit it noonu rek duñ tëb tëb ne nit ki dara baaxul ci moom waaye li baax ci moom lu baax la li baaxul nag baaxul kañ lañ koy tuddee ab kàccoor mooy su demee ba li baaxul ci moom moo ëpp li am njariñ ci moom bu daal doon ku baaxul lu lu bon la gën a bari lu baax la di gën a néew muy gën a bon ñi koy gën a boole suñu bon ñi kon loola noonu la demee faw ñu leeralit ñetteel ba moo di rahmatu nabi sallallahu alayhi wa sallam bil xalq yërmaande yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bindeef yi ci bindeef yi yërmaande yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jullit yi moom kenn nattabliwu ko bil muminina raufur rahim la sun borom ci boppam wax nee na ku ñeewante la ku yërëm la ñi gëm yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam la yàlla wax loolu ci alquran al karim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim dafa yërëm jullit yi dafa am ci ñoom ak ñeewant waaye yëmut ci loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yërmaandeem baawaan na ba ci ñi nekkul jullit benn bis ci ab xeex bu am diggante jullit yi ak seeni noon dafa dikk fekk jigéen ju ñu rey yoo xam ne ci yéefar yi la bokk toll ci ndawam di ndaw mu ñëw ba agsi jël dara sàng ko ci kawam ne maa kaanat haadihi li tuqaatil beneen riwaay maa kaanat haadihi li tuqtal kii de kenn waru ko woon a rey yërëm ko alayhi salaatu wasalaam kon yërmaandeem baawaan na ba jéggi ñooñu ak ci misaal yu bare bare bare bal dem na ba jéggi doomu aadama sax dem ci mala nettali na nit koo xam ne tàbbi na àjjana te jigéen joo xam ne njaaloo la doon liggéey tàbbi na àjjana ci sama bos ab xaj boo xam ne dafa mar bay mar suuf si ndax ñàkk lum naan mu ñëw génne am ndox jox ko mu naan mu ne kooka tàbbi na àjjana ci sama bos loola ca xeet yi jàlloon la waaye nettali gi ñu ko nettali alayhi salaatu wasalaam woote la ci yërëm mala dem na ba am na mbokk mu bind sax ab téere ci rahmatu nabi sallallahu alayhi wa sallam bil xayawaan yërmaande yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci mala la jëm kese ab téere boo xam ne ci loolu rekk lay wax ki mel noonu nag dikk indaale yërmaande yu mel noonu di yërëm jullit yi ba yàlla waxal ko boppam di yërëm yéefar yi nga xam ne dañoo jaamaarloo moom di xeex di yërëm ba yërëm mala yi nga xam ne ñooy dox ànd ñoom seen xel kooku ñu bëgg koo defal benn image tey ci jamono boo xam ne suñ ko tuddee dañoo bëgg la njëkk a war a njëkk a dem ci xel yi mooy kuy tuur deret nit koo xam ne àdduna kese ko taxoon a jóg nit koo xam ne bànneexu bakkanam la toppoon noonu lañ ko bëgg a joxee tey moo tax loolu faaw na ñu jóg ci def ko ñett yooyu bokk na ci yi liggéeyal objectif ñetteel bi objectif ñeenteel bi mooy tasfiyatu al turaas al islaami li nga xam ne moom la nekk moo nekk ci lislaam tey ci loo xam ne dañ koo bind sooy ba nga ne lu nekk ngi lu ne kon liggéey bu rëy am na foofu boo xam ne objectif boobu ngir ñu liggéeyal ko moom it laaj na ñetti tomb yoo xam ne war nañ koo def ba ci jëkk moo di takwinu jiilin min tullaab al ilm al qaadirin ala taxassus fi al ulum sharciyyati daqiqa foog mu am ay spécialiste sharia ci xam-xami sharia yi gën a xóot faw ñu jàng ko ba xam ko ndax ñu mën a setal lislaam yi ci li ci bokkul mu mën a wane ne ñi mën a wane ne lii bokku ci ñaareel la tafriiqu adadin min albaaxisiina almuxtarifina lilqiyaam bi taxqiiqi turaas wa garbalatihi wa tasfiyatihi formé ay kuréel yoo xam ne ci spécialiste yooyu lañ bokk seen liggéey mooy lan muy gëstu recherche réew yi bu ñu bëggee am développement ci seen wàllu àdduna kenn mënta bàyyi recherche scientifique muy gëstu ci lu jëm ci wàllu science suñ ko bàyyee aw askan wu mën a doon. da ngay daamu mooy ñeneen dañuy gëstu ñoom ngay jënd ci ñoom rek di lekk waaye lu too am njëriñ waaye ci diini ji ngir ñu mën a tabax doomu aadama joo xam ne day mucc ci manqué mucc ci ëpp faaw am ay gëstukat yoo xam ne ñooy dellu ci li ñu bind mu nekk ci lislaam ñu tamewaat ko tame ko xool la ca bokkut ñi leeral ne lii bokku ci la ca bokk ñu ne lii ci la bokk mu doon ay téere yoo xam ne yu leer naññ lay doon yoo xam ne dàq la ca bokkut lay doon indi li ci bokk lay doon loola nag mën naa aju ci lu ne boroom xam-xam yi koy seetlu ci liñ gën a liggéey ci fànn googu mooy fànnu xadis mboolem xadis yi nga xam ne dañ ko doon yéem a dugal ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bokku ci yooyu yëpp génne nañ ko teg ko fële ne lay bokku ci lii moo ci bokk mu doon lu yomb tey nit ki ñu ne ko xadiisa gi mu xam ndax wér na wala wérul waaye ci wàllu pas-pas laaj na liggéey bu bari na ci wàllu suluuk muy xeetu jaamu yàlla yi luñ ci war a boole luñ ci war a boole laaj na liggéey bu bari ndax li jullit yi appliqué tey yu bari moo xam ay doomu aadama lañ wala dañoo doon ay kuréel suñ toogoon seen digganteeg seen borom te doon boroomi xam-xam ñuy xool yi ñuy jëfe la ca bokk ci diine ji nga xam ne mën nañ ne fii la ko alxuraan tegtale wala fii la ko sunna tegtale nga ne lu ma gis alxuraan ak sunna nangu ko danaa ko fi bàyyi lu mu nangu danaa ko dindi ñu bari suñ noppee ca loola li ñuy dese tuuti lay doon tuuti lay doon kon delluwaat boobu xoolaat mu raaja awaat muy xoolaat li nga xam ne moom ngay jaamoo yàlla xoolaat li nga pas ci pas-pas xoolaat sa suluk muy sa doxalin ci jaamu yàlla yooyu loolu lépp aaja na tasfiir ñetteel ba mooy qiyaamu muassasatin ilmiya tu'na bi hadihi lfunun faw am ay mbootaayi lislaam yu mag yoo xam ne dañ leen di fonte pour xam-xam muy gëstu ci wàllu pas-pas la ca bokk ak la ca bokkul ci wàllu fiq la ca bokk ak la ci bokkul ci wàllu xadis la ca bokk ak la ci bokkul ci wàllu usul ak ci wàllu même histoire ndax même waxuma histoire ul islam xëy na lu ci bari bind nañ ko waaye suñ réew yi suñ histoire daanaka sooy bëgg ne kenn bind ko ci lislaam maanaam histoire ul islam tey ci Sénégal junni at ak nangam yi bi lislaam am ban téere nga ko mën a jubali rek dem jàng ko xam xam lan la état bi lislaam jaar ba mu sosoo ba bi mu agsi ba fii nu toll nii amul ñi nga xam ne ñoo fi liggéeyal lislaam te doon suñ mag ñi suñ maam yi maam yi bëkkaati démb yi ak maam yi bëkk démb yi ak maam yi démb yi jege yi ñooñu ñëpp kenn ku ci ne am na loo def léeg-léeg ma dégg kuy wax ne dañ ko war a jàngale ci suñu école yi waaw bu ko doon jàngale ban téere ngay jël tey ban téere ngay jël jàngale ak matière bu mu mën a doon laaj na mu am matière bu mu doon luñ bind bindiin wa dafa am nuñ koy bindee moom itam maanaam maa ngi bind ci sëñ diw wala maa ngi bind ci kuréel ka koy bind dafa war a doon commande kumaanu mooy koo xam ne fàddikuwul kenn faralul kenn itam ki far lu baax mu bind lu baaxul mu teg fee soo noppee soo yëkkatee da nga daan kii de lépp baax ki nga xam ne farul lu baax mu teg fee lu baaxul mu bind soo noppee da nga daan kii dara baaxul ñooñu ñaar nag kenn mënu ci taarixal aw askan mënoo ci taarixal ab kuréel mënoo cee taarixal ak nit faw maanu sa gi am su dara ñëwee nga ne lu baax la nga yëkkati ko baax ba ñëpp xam ne lu baax la su njuumte ñëwee nga ne lii njuumte la loo xam ne waru ko woon a def culture boobu nag àggagun ci ba léegi ba léegi àggagun ci kilifa goo jëloon tey bind ci moom téeméeri page yoo xam ne lépp lu baax la ak i takk nga indi benn ligne boo xam ne bu négatif danañ daal di fàtte lu baax la nga woon leer ñu jóg ne kii ab noon la boo xam ne ndeke lii lépp ay pexe la woon boo xam ne pour daaneel ma moo ko taxoon a jëm kon jëmmi environnement bi ci boppam dimbaliwut culture pour mu jëm kanam kon liggéey bi jafe jafe jafe mi ngi ci suñ kanam mi ngi ci kanam génération yi ñëw ci suñ réew mi ci wàllu diine ak ci wàllu suñ histoire ci diine l'islam bañ a guddal foofu loolu bi ci sës muy objectif juróomeel bi muy yar ndaw ñi muy tarbiyatu jiili saxwa foofu moom lañ koy wax du bari mooy ndaw ñi li ñu laaj tey gannaaw boo xam ne jàngal leen diine ci ay texte ba seen li ñu tudde fardu ay ñu xam seeni farata xam ko ci tawxiid xam ko ci ni ñuy jaamu yàlla xam ko ci seeni jikko dafa laaj yar leen ci ak xàmmee kañ lañ war a seqi ak jéego ak kañ lañ war a taxaw ñu bari dañuy taxawe bu ñu waroon a doxe ñu bari doxe bu ñu waroon a taxawe lu ci nekk njuumte la fexe ba maanu ci seeni àtte lu baax tudd lu baax lu baaxul tudd lu baaxul ak fu mu mën a jóge abdullah ibn xuzaafa abdullah ibn xuzaafa as-sahmi radiyallahu taala anhu ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon ci ndaw ñi sax la bokkoon dafa joxe misaal moo xam ne ci position nit ki ni mu war a dunde moom ndaw ngir mu équilibre ngir du ëpp du yées dafa am benn mbir mu ko gaar moo xam ne ñaar yi ñaar da caa feeñ yuy wone ne ni ñenn ñi xalaate ne mbir mi daal benn lépp weex tàll wala su dul loolu kon lépp daa ñuul bugg ne mbir mi du noonu mën naa bañ a weex tàll waaye fekk ñuulu bugg itam maanaam lépp mën naa bañ a doon lu baax waaye lépp mën naa bañ a doon lu bon kon am na lu nekk ci diggante bi Abdullah ibn Xusafata as-Sahmi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koo yónni ñi jàpp ko prisonnier indi ko ci buuru Rome yi mu di ko xub ba wane ne da koy rey bañ teg ci di ko togg wane di ko baxal wane ne dañ ko ci dugal mu waatal leen ne moom lim lim lim gën a bëgg tey mooy waxu benn bakkanam bii ngeen rey ko waaye mu amoon lu ma téeméeri bakkan ngeen di ko rey benn par benn benn par benn ba mu jeex te fekk loolu lépp ci sabilillahi la nee na loolu moo ko gën a doon kon benn bi moom taxut muy wax biñ demee ba gis ne lii amul njariñ maanaam liñ ko bëgg a wax la du ko wax ñi laaj ko lu mu bëgg mu ne moom li mu bëgg mooy prisonnier jullit yi ñu jàpp fii yépp ñu bàyyi leen ñu dem buur bi dugg ci biir diisoo bi nitam dugg génn dugg génn dugg génn ñu ne ko mën nañ leen a bàyyi mu jóg fi mu nekkoon ñëw fóon boppu buur bi xoolal ci ci diggante diggante bu gàtt fi mu dëgëre bay wane ne ñu dugal ko ci cin li mu yor benn bakkan ak téeméeri bakkan moom la yemale diggante boobu xalaatam soppiku na ci buur boobu ko doon menacé ci dugal ko ci ndox mu tàng bi bég ci moom ba fóon boobu lu tax mooy mbir yi bokkul changement yooyu ak xàmmee googu yi lu bari moom la ñuy mànkile nit ki daal ginnaaw ku bon la ab yéefar la nitug bi daal la nàngam la nàngam la amut lu ñu war a mën a rafetlu ci moom su fekkee noonu ngay xalaatee sa xalaat àjjana xoola lu baax foo ko fekk fu ne lu baax la tudd ak ci kum mën a jóge ci kum mën a jóge ci baax la lu baax la tudd lu bon ak kum mën a jóge lu bon la tudd donte ci ñi gën a baax ci nit ñi ñoom la lu bon jóge ci ñoom it loolu lu bon rek lay tudd kenn du ko jëm duñ koy bàyyi ñoom ba noppi nag ñaaral ko yàlla mu jéggal ko ku bon kee nga xam ne ñëpp àtte nañ ko ba ne ku bon la lu baax jóge ci moom ndax danga naan bëgguma lu baax lii ndax ca waaja la jóge déedéet waaw nga jël ko waaw nga jël ko ndax lu baax la tudd xàmmee googi mooy des léeg-léeg ci ndaw mi moo tax Abdullah ibn Xuzaafa bi mu dikkee nett li lii ma lay wax ni ci jamono Omar ibn Xataab la radiyallahu taala anhu maa ngi wax sax na yonent bee ko yónni woon waaye ci jamono Omar ibn Xataab moo ko yónni woon bi mu dikkee nett li ko Omar Omar radiyallahu taala anhu daf ne war na ci bépp jullit mu jóg fekk Abdullah ibn Xuzaafa fee mu toog fóon boppam comme na mu fóone bopp buur boobee daal di ne man maay jëkke daal di jóg moom Omar ibn Xataab amirul muminin ñëw ci Abdullah ibn Xataab daal di fóon boppam julli di ñëw def noonu loolu lu mu lay jàngal moo di maandute gi nga xam ne julli di maandu nañ ko ci ne dafa am ci seeni àtte loo xam ne lu baax la tudd ñi di ko nangu ak fu mu mën a jóge am loo xam ne lu bon la tudd duñ ko nangu bokk na ci it muqtadayaat yi muy yi nga xam ne mbir mi laaj na ko mooy jege jege ndaw ñi jege ndaw ñi bañ leen a sori jéem a dégg xam seeni problème dëgg-dëgg mooy lan ndax mënees ko saafara loolu lu mënta ñàkk su fekkee ne li ñu tudde faj wa muy ak soree dafa am ci diggante ndaw ñi ak mag ñi wala diggante ndaw ñi ak boroom xam-xam yi soree kooku toujours li muy jër mooy jafe-jafe mooy ndaw ñu toog di xalaatal seen bopp di dëlu bopp seeni plan di exécuter seen bopp di def ay njaaxum njaaxum yi dellusiwaat ci mboolem xeel bi loolu nag moom lil asaf moom la ñuy dund tey ci alamul islamique bi yépp faw ndaw ñi ñu wutal leen ay programme yoo xam ne yu am njariñ la yoo xam ne dana leen mën a jariñ ci seen àdduna mën leen a jariñ tam seen àlaxira faw ñu jàngal leen tariqatu tafkir as-salim maanaam nu ñuy xalaate xalaatiin bu mujj lu bari ci jullit yi tey am nañ ixlaas bu baax a baax ñu dëggu lañ itam loolu mooy li ëpp ci jullit yi insha allah waaye nag dañuy aajowoo ab xam-xam bu xóot ci maxkamaatu sharia yoo xam ne dana aajowoo lu ñëw ci lu bees ñi xam fu palaasam féete ci sharia kon dafay mel ne défi bi gën a màgge muy taxaddi bi gën a màgge mooy ay manki manki yoo xam ne dafa am ci xalaatiin xalaatiinu ndaw ñi tey dem na sax ba ci xalaatiinu lenn ci ay boroomi xam-xam ndax li ngay àtte lu mu mën a doon moo xam nit la moo xam jëf la moo xam mbooloo la nga mën koo teg ci taabal xool la ca baax nga jël ko teg fee li ci baaxul nga teg ko fii boo noppee door a joxe àtte boobu ci nit kooku wala ci jëf jooju wala ci mbooloo moomu xalaatiin boobu ñu bari moom lañ manqué la tey li ko waral mooy amut lenn loo xam ne léppam dafa négatif loo xam ne léppam salbi la dara baaxu ci loolu yàlla bind ko loo xam ne jëlal iblis ku ko gën a bon am naa moo ne am na njariñ am na njariñ ndax yàlla jël na sànni ko jox ko liberté boo xam ne mu yàqal nit ñi rek moo ko tax a jóg mu xamal ko jullit yi itam ak nit ñépp ne leen kii seenum noonu la fattaxiduhu aduwa jàppe leen ko muy seenum noonu ku góorgóorlu ba mucc ci ay pexeem raw na ku tàbbi ci ak fiiram doo mujj waaw nan laay mujje ci moom mooy amal tawxid dellu ci sa borom inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam yi nga xam ne dañoo jàpp ci tawxid doo leen mën a dara yow iblis kon yow jëriñu woo foofu ne boo jàppee ci tawxid da ngay mucc ci iblis mu kay kooku njëriñ ak yeneen i njëriñ njëriñ yoo xam ne lenn ci ay borom xam-xam takk nañ ko ba mu dem ci juróom-ñaari njëriñ yoo xam ne iblis da koy njëriñ kon day mel ne lu négatif amut su loolu amee nag booy àtte mbir mu mën a doon jàngat ko door koo àtte la ca baax day lu baax la tudd la ca baaxut lu baax la tudd ci jëmmi jamono dafa am ab boroom xam-xam bu joxe ab fatwa jamono yi xaw yàgg laa lay wax day dellu ay boori 1998 dafa ubbee ca université ci laaj buñ ko laaj ndax jàng droit dagan na mu ne leen déedéet ba ay nit dogu ci bàyyi seenum njàng waaye yàlla dogal biñ ko daataan bàyyi ñu laaj ma am na ci ñaari kilifa yoo xam ne maa ngi leen di fàttaliku ba suñu jonni tey jii donte fàtte woon naa ko waaye ñoom ko fàttaliwaat ñoom seen bopp ci lu yàggul biñ ma laajee ma ne leen mu koy dagal na lu tax moo di droit li muy tudd mooy la nga fay jàng mooy na nga maandu te bul tooñ droit yi ci àdduna yépp loolu moo ci nekk nit ko nag mën naa génn jeng wala mu dëng ma ne ko yow mii nga xam ne dangaa am diine tey su fekkee wóor na la ne lii ngay jàng boo demee ca taabali attewukaay ja kii yor dooleem di cëpp cëpp wala dara jaam wala alalam ba tax muy tooñ nit ñi bu agsee fi yow da nga koy yemale ku néew doole kële nga xam ne miskiin la amul daraja amul alal amul askan waaye dañ koo tooñ nga jël àqam delloo ko ko kii doon tooñ nga teg ko ci yoon su fekkee wóor na leen loolu ngay def soo jàngee droit demal jàngi droit moo gën ci yow sax lu bari na ndax soo bàyyee place booba ak kamerul noonu keneen dana ñëw toog place ba nga naroon a toog ëllëg di àtte leneen lu bokkut ak li nga xam ne mooy yoon maandu maandu la tudd mooy i'taa'u kulli fi xaqin xaqahu kenn ku ne nga jox ko àqam boo ko defee yaa ngi àtte maandu su fekkoon ne dan ne nun de état islamique la yor dañu àtte wal islam ñépp daje ñu naa jumhuri islamiya nangam jox ko ay tur waaye fekk la ngay àtte maanu te nekku ci loola du lislaam su fekkoon ne tuddiwoo sa bopp noonu moo xam laay cité nga tudde sa bopp moo xam tur boo mën a jox sa bopp waaye la ngay àtte ci seen biir tribunal mooy ku am àq nga jox ko ko ku mat a toroxal nga toroxal ko su boobaa li ngay def moom yaa ngi am ngërëmul yàlla loolu mooy dëppoog li cheikhul islam ibnu taymiya rahmatullahi taala alayhi di wax ne yàlla dana taxaw dana dëgëral nguur bu maandu donte du nguurub lislaam waaye day dana toroxal nguur bu maanduwut donte nguurub lislaam la kon atte ci maandu te fu ne lañ ko mën a defee ki mu wóor ne boo jàngee da ngay atte ak maandu te demal nga jàngi lu la neex boo noppee jaar ci siraatul mustaqim ñooñu suñ kàttanu kàttanu suñ borom tabaraka wa taala tey ay kilifa yu mag lañ ci yoon ak ci liggéeyal seenum réew moo tax damay wax ne léeg-léeg ci àtte mbir mu mën a doon muy jëf muy wax muy lu mu mën a doon ci àdduna xoolal anam yépp boo xoolee gis ne li négatif mu ëpp nga àtte jox ko àtte négatif li positif moo ëpp nga jox ko àtte loo xam ne lu baax ànd ak ne la ca baaxut moom lu baaxut la tudd waaw ñu xam ne lu baaxut la la ca baaxut waaw ñu xam ne lu baaxut la ndaw ñi ñeenteelu tomb bi ci boobu yi ma nekk faaw ñu jàngal leen li ñuy tudde handasatul waqt waxtu ci boppam dafa laaj teg ci aw yoon waxtu yu bari mi ngi sàmm tey te jamono ju nekk nit ñi dafa am loo xam ne moom lañu war a gën a jox fulla yi baax dafa bari lool ci lislaam waaye lislaam boo xoolee ni mu organisé bokk na ci fonk waxtu mooy li ma doon wax léegi waxtu wu ne nga jox ko àqam waxtu wu ne nga jox ko àqam jàng alxuraan am na lu ko gën ci kaw suufa amut de waaye ndax ku sujjóot dana jàng alxuraan ku sujjóot ci biir julli dana jàng alxuraan xanaa war ngeen a jàng loolu ci fépp dañ koy tere dafa xaraam fof jamono bi noddkat bi nodd nga ubbi sa kaamil di jàng ndax yaa ngi am tuyaaba daa am leneen lu ñu la digaloon yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne kay nodd buy nodd waxal lu mel ne la muy wax bu noppee nga wax li nga war a wax julli ci man soo ko defee am nga tuyaabay nangam ak nangam ak nangam ak nangam suñ dikkoon di la laaj ñene la baati nodd ak jàng alxuraan lu ca gën dañ lay wax ne loolu amul comparé kenn mënut a comparé seen diggante alxuraan amul yeneen wax ju mu gënut waaye jamono jii ñuy nodd wax la kay nodd wax loola rek mu jàll organisation bu xóot bu sew boobu noonu la lislaam organisé lépp fenn fu ne daa am lu jot loo xam ne loo fa mën a def lu dul loola leneen baaxul noo ngi ci weer tey weer woo xam ne weeru koor la tudd weer woo xam ne jullit bi daf ko war a mànk ci jaamu yàlla lu mel ne lii ngeen nekk toog ci néegu yàlla di déglu waxtaanu lislaam jàng alxuraanul karim julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tudd yàlla nekk ci sab liggéey di def lu jub di def lu baax jëmale ko ci bindee bi di dogal ñi wooroon bu guddee ngay naafi la feesal weer wi ak loolu jullit bi xam ak ki waxtu moo war a doon ittee mu feesal waxtoom ak loolu waaye tey xoolal yii soxlaat nit ñi ni mu toog téléphone bu ndaw bii nekk ci wet sa wet ak la ca nekk ñu bare bari li ëpp seen wax foofu lañ koy jeexale te yàlla xam na ne yoruñu alxuraan di ko jàng ñu ci bari la leen bàyyi ci téléphone bi du alxuraan am na yeneen i yëpp yoo xam ne ay góorante la ak ay waxtaan ak ay nangam yoo xam ne boo ko seetloo fa mu gën a baaxee mooy dañ naan rek waxtu wu sànq noonu wu dem waaye nag léeg-léeg ay bàkkaar sax mën na jàll nga jekki ba tàkkusaan waxtu yi nga xam ne ku wóor ba dog bi bëgg a jot foofu lañu waxee ne loo ñaan suñu borom tabaraka wa taala da koy nangu ci lu baax ñu tegal la benn plan médiatique boo xam ne ay série yoo xam ne ci waxtu woowu lañ koy jàllale ci télévision yi rajo yi nit ñi concentré di ko seetaan mel ne kuy kuy kuy déglu loo xam ne ak jaamu yàlla la ña koy nas xarañ nañ xarañ koo xam ne tëreel nañ ko noo xam ne boo ko tàmbalee du la ci mën a génn fu mu yem tey faaw nga ne ko subaa ma xam lu ñuy tegu noonu lañ lay continuer ba sa weer jeex ñu sàcc sa waxtu sàcc nañu waxtu wa gënoon a baax ci yow bi waxtu bu ñuy bëgg a dog nga xam ne foofu la jàng alxuraan yi nekk fa la julli ci yonent ba nekk fa la tàllal say loxo sa boroom ñaan ko ñaanal sa bopp ñaanal sa askan ñaanal sa réew ñaanal umma bi foofa moo doonoon meññet mu baax ma ñu sàcc ko ci yow fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam ne bis bu nekk ñu yóbbul la waxtu woowu weeru ramadan jàll wala yaasu billah la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon perte na perte na perte na ñu ne ko kan yow yonente bi yàlla bi mu ne koo xam ne ramadan dugg na fekk la fi ba génn te fekk jéggaluñu say bàkkaar loolu la koy indi mooy yu mel noonu mooy sànq waxtu damaa jël ramadan rek comme misaal ndax ci lañ nekk waaye lu bari ci askan wi seeni waxtu day sànq seen waxtu day sànq ñàkk a fonk waxtu mi ngi ci ñàkk a fonk rendez-vous mi ngi ci ñàkk ittewoo sa waxtu ba di ko kalkin ba àgg ci nay ci loolu manqué la nañ ko lool waxtu rek mooy loo xam ne des kee war a nay nay googee doon ak jaamu yàlla doon lu baax sa waxtu mooy sa dund lu ci xas dem ñàkk nga ko te duutu del siwaat la minute bi xas weesu weesu ñi nga xam ne dañoo dem tey àdduna itteel leen ba ñuy kalkin waxtu ni ñuy kalkine waxtu mooy su amee benn groupe boo xam ne mat nañ téeméeri nit moo xam ci société lañ nekk wala ci nangam dañuy xalaat ñooñu su fekkoon ne dafa am juróomi minute yoo xam ne ci waxtu wi ñu doon liggéey la boo xam ne dafa sànq duñ ko calcul rek ne diw sàngam mi perte na juróomi minute kon loolu amul solo parce que 24 heures moom juróomi minute amul solo waaye dañuy xool juróomi minute ak téeméeri nit loolu ñaata minute la cinq cent juróomi téeméeri minute la société boobee ñàkk ci juróomi minute yooyu nga xam ne ñëpp dañoo ànd taxawlu ko kon ñi nga xam ne ñoom dañoo ittiwoo àdduna kese ñi ngi calculer seeni waxtu ñi ngi ci sonn loolu nag faaw ñu bàyyi ko xel faaw ñu jox ko itte su loola jàllee muqtadiya bi nga xam ne mooy muqtadiyaatul hadaf saadis mooy boole kàddu jullit yi yi ma dox ngir jullit yi nekk benn loolu day objectif bu mag a mag a mag a mag la waaye nag laaj na liggéey bu bari liggéey bi ci gën a ñor nga xam ne su amee nit ñi danañ bennoo mooy nañ jàngal julli di alxuraan ak sunna te delloo leen ci loolu rek moo leen mën a bennale lu dul loolu bu ñu benn faw ñu dellu ci alxuraan ak sunna nii ñu koy jàngee julli yëpp maase lañ di jàng alxuraan di ko mokkal suñ ko jàngee mokkal nañ ko jàng xam alxuraan ni li muy wax lu mu doon même ku ko jàngul ba mokkal ko sax nga jàng ba xam alxuraan lan lay wax lan lay digle lan mooy usul yi muy digle man rek méthode bi nga xam ne moom lay wax ne jullit bi na ci jaar na ko dund loolu suñ ko bokkalee muy alxuraan ak sunna benn lenu day yoon te jullit boo wax mu ne gëm naa alxuraan jullit boo wax mu ne gëm naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa ko kon kay li ci des mooy jëfe alxuraan jëfe sunna mu jeex fexe ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon suñ royukaay fexe ba alxuraan ak sunna doon fa ñuy jële diini loolu suñ ko defee rek coow luy bari naan kaay leen lu bennoo sax bu ko jàpp dañuy jékki-jékki rek gis nañu ñëpp benn lañ waaye su fekkee yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa nekk benn modèle ci modèle yi kooku mooy indi njaaxu dañu tàqali ko su fekkee ne kuréel bu ne dañoo am modèle boo xam ne moom la ñuy roy kër bu ne am modèle boo xam ne moom la ñuy roy te modèle yooyu seen bopp waxuma ñoom yonent bi waaye ñoom seen bopp sax bokkuñu li ñuy def bokkuñu fi ñu jëm loolu mooy tàqale aw xeet su amee nag lu leen mën a boole loo xam ne fuñ ca delloo nekk benn loola dañ ko war a jàngal dañ ko war a xam dañ ci war a kon tomb bi ci jëkk mooy daawatul muslimina ila al-awdati lil kitaabi wa sunna bépp yëngatu ko boo xam ne dafay leeralal nit ñi tomb bi jooyoo yi dox seen diggante ñuy waxtaane nan la ñuy def ba tomb yooyu leen jooyee la ñuy dindi ko teg fële loolu ci liggéey bii liggéeyal tomb boobu ci la bokk bokk na ci tomb yi leen di lig- yi liggéeyal tomb boobu muy boole askan wi jéem a fexe ba bépp liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéeyal islaam ñu teg ko ci kaw fondement maanu maanu maanu ak teg fële jooyoo yi nga xam ne li ko waral mooy diggante nit ak nit maanaam du jooyoo yoo xam ne principe la léeg-léeg lu bëree bëri ci xuloo yeeg xaste yeeg saagaante yeeg yu mel noonu dafa am lu ko waral diggante nit ak nit wala ab acte boo xam ne àtte nañ ko nit te xamaguñ ko xam nga boo xoolee bokk na ci gàkk yi gën a rëy tey te noonu lislaam teeloon koo tàmbalee xeexe lool ci histoire moo di kuñ bëggul ku ne dañuy fexe ba sa image salte nga ne buñ ko tuddee rek la xel yi njëkk a dem mooy nangam loolu ab liggéey bu rëy la laaj ab liggéey bu rëy la laaj boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey nga xool jëmmi lislaam ci boppam tey boo demee ci réew yi tugal yi dem ci lislaam fexe nañ ba am benn image boo xam ne ci xel yi la nekk loolu day rogalaat ba ci biir jullit yi ci seen jëmmi boppam su amee benn jullit boo xam ne jullit yi bëgguñu ñu déglu ko danañ ko wutal image boo xam ne danañ ko tasaare parce que suñu waxee ñu ne ah kooku diw ah yii kooku mooy ki nga xam ne nangam lay wax nangam joojee rek moom la ñuy jël mu nekk image borom bi tabaraka wa taala waxal ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qaalu saaxirun aw majnun lu yàgg la ña jiitu woon nee na ab yonent musta ñëw lu dul ñay yàq image am lu ñuy wax ñu ne saaxir ñu ne kii jabar la aw majnun wala ñu kii ab dof la nga xam ne seen xeex bépp mooy buñ tuddee yonent ba rek nañ ne ab dof la ah kooku de dof la buñ ko ñu ne ah kooku de ab jabar la su defee luñ mënta xam luñ mënta comprendre ñu ne jabar la su waxee luñ déggul ñu ne ab dof la image boobu moom lañ doon liggéey pour taf ko mu nekk ci xeli doomu aadama yi ba léegi nag yow wootekat bi nga xam ne yaa ngi kër kër yi di jéem a réparé li yàqu ci xeer bi danañ la wutal image boo xam ne boo waxee wala boo génne boo defee nangam lay jëkk a dem ci xel yi mooy nangam xam nga ne léegi ñu ngi ci jamono joo xam ne xalaatu ne ab terroriste la lu yomb la te te fu mu jibee rek mën naa faagaagal aw aw aw askan wala kuréel wala sax nit faf fu mu wéree ne moom la kooku nit ñi amatuñ li ñu naan table kooku moom daa war a jógee ci askan bi ña ko jege woon sax dañuy ragal faf di daw ah kii kat ginnaaw nee nañ ci kon awma ci lu ma wóor kon naa naa sori rek moo gën a wóor bala ma maa yóbbaale fekk salteel dimanche lañ ci jëm léegi la ñu ne kooku mooy ki bañ mag ñi xam ne dimanche boobu lañ koy doon wala mooy ki bañ sëriñ si dimanche boobu la ñu tasaare bu leen ko nangu bu leen nangu ñu tapaleen image ub na yéene ñi bañ sëriñ si sëriñ si nga xam ne ñoo tax ñuy wax sëriñ si la ñu nekkoon mooy dundal alxuraan ak sunna ci seen képp kàttan ba seen xam-xam tool seen yëngu te jàppal ne ñoo ak yow yéen a bokk lu ngeen nekk te buñ fi nekkoon tey dañuy ñëw ànd ak yow ngeen nekk wala yow da ngay dem ànd ak ñoom ngeen bokk ci lenn li kon nag ki ñëw bëgg laa defub noonu ne yaay noonu ñooñu bul ko noonu lu ne la ñuy def am na jamono ci ci misra ñu tasaare ci nit ñi ci jamono xam nga am na waykat bu ñu daan wax Umu Kalsum nit ñi dañ ko bëggoon ba jaral leen sax di faatu ba mu faatoo sax ñu bari faatu na frère musulman yi doon ñoo xam ne dañ doon woote ci lislaam ñi fexe ba tasaare ci askan wi ne ñii ñooy ñi bëgg a rey Umu Kalsum lu mel noonu jamono bi nekk day am ñii ñooy ñi bañ mag ñii ñooy ñi bañ sëriñ bi am na fi bis am na fi ay concours yoo xam ne dañuy dañuy yóbbu nit màkka te concours yooyu xàmmeewul ab tariixaat foo mën a bokk fu mën a doon boo ci gañee da ngay dem yàlla dogal am mbokk moo xam daa gañe ci concours bi dem am fu mu féete ci tariixa luñ tasaare ca biiru askanam mooy daa am concours bu ñu doon def boo xam ne ka gën a bañ sëriñ si lañ ne ku ku leen gën a bañ dañ lay yóbbu màkk diw sàngam loolu moo tax mu dem màkk parce que jekki nañ jekki gis ko ci seen biir mu cokkatiku ñu leen yóbbu nañ ko màkk te xamuñu lu tax ñu ne kon concours ku gën a bañ sëriñ si ci la dundoon ñu yóbbu ko màkk kon kon yow mi nga xam ne dangaa doon koo xam ne sa xam-xam soriwul soo jàng soriwul ngay déglu nit ñi di wax wattu la nekk victime ñi jox la ay jugement ay acte yoo xam ne dañ koo teg ci kaw nit te du dëgg nga gàddu ko defe ne yow ci dara nga nekk yow mi ñuy àtte àtte boobu yi bul ko nangu nag bul ko nangu fa ñu lay séentu te du dëgg dindi ko ba mu set wecc ci say wax ak ci say jëf ak ci sa comportement yooyu daal ci ak gàttal mooy ahdaafu daawa islaamia ay objectif am ak benn bu ci nekk li mu laaj muy ay muqtadiyaatam ci kàddu yu gàtt nga xam ne danañ mën a bàyyi fanweeri minute yi mu nekk lu jëm ci question yeeg yooyu moo di moyens yi ñu war a mën a jëfandikoo pour tasaare lii bokk na ci daara yi ak école yi bokk na ci jataay yi xam-xam yi ñu def ci jàkk yi ak feneen bokk na ci minbar bi nga xam ne des fay taxaw di xob la bokk na ci média bi nga xam ne dañ koy jëfandikoo yooyu yëpp ay jumtuwaay la kenn ku nekk kuy woote woote ku ne it waroo xeeb yii may tudd mooy jokkoo ak nit ñi kenn par kenn di waxtaan ak ñoom di leen jubbanti di leen xamal di leen digal lu baax di leen tere lu bon bokk na ci ay déplacement yoo xam ne ay jawlaat daaw yi di déplacé di fekk nit ñi ci seen i kër di leen fekk ci àll bi di leen fekk ci fa ñuy dundee ngir di leen orienté di leen yee ci diini ñi di leen jàngal bu baax di leen jàngal njub di leen jàngal lislaam ca na mu gën a rafet bokk na ci biir vacances yi ñuy def ay colonie de vacances yoo xam ne lu baax warees na ko fa mën a jàng warees na ci mën a delloo si ndaw ñi tegaat leen ci siraatul mustaqim jaraat leen ba mbon ge caaxaan ge agression yi ñuy dégg yépp ñu mën a fexe ba ndaw ñi mucc ci yooyu teegal bu ëpp gi ñuy dégg ñu fexe ba mën leen a delloo si ba ñu mën a jaar ci siraatul mustaqim bokk na ci ay séminaire ak ay conférence yu mel yi ñuy def yooyu yëpp ay moyens la yoo xam ne warees na ci mën a jaar dimbalante ci ba li nga xam ne moom lañ bëgg muy woote bu lislaam bi doon woote boo xam ne ñëpp danañ àndandoo rafet ci njort waaye ñëpp danañ àndandoo yëg ne am nañ ci responsabilité boo xam ne responsabilité bu woote la ak responsabilité bu wuyu yàlla na suñu borom tabaraka wa taala defal suñu waxtu yi bu bokk ci waxtu yi nga xam ne dana ko nangu mu doon ak jaamu yàlla te defal ñu tawfiq ma suñu weer bi ñu àggale ko su jàmm ca nam ko bëggee moom musal ñu ci lépp loo xam ne fitna la defal na ci suñu réew jàmm képp ku fi bëgg a indi fitna it yàlla na yem ci moom képp te bañ koo jéggi jëm ci keneen wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم